c'est bon. alhamdulilah léegi mën nga toog. waaw mën na maa toog. voilà c'est parti donc euh, allo good morning. macha allah ah ma toog rek nga ne ma porte. ah atia. ah waaw gaawal da ngay liggéey bisimilah bisimilah aywa. kuy liggéey kay day gaaw. ah kon big up jotagu la. déedéet. ah ay <laughs> dencal sa big up yi. néegal ma denc big up. waaw ah, kay. macha allah macha allah macha allah. waaw moom dafa am sax kii kiri dem naturellement. macha allah Khadija dégg naa mu ne xaw ma moom day tëdd guddi diggante am yu koy yu koy kott fanaan ak moom ba bërëset. Hmm. wax dëgg yàlla nag xadi eh, da ngay ñëw ma di la jàngali ayatul kursiw mhm. su ma lay jàngali ayatul kursiw su ko defee bu di jotee rek boo ñëwee bu ma la lëngee macha allah dara dootu la tiital wax dëgg yàlla dootu gënt dara macha allah waaw 822 la numéro bi waaw nga boole ci fili boole ci noonu man sax gis nga defal ndànk ndax man it mhm. noonu sa xel mi tey toogu déet xam nga da di mbiri diine maanaam boo ci nekkee. Oh, ah waaw def nii bu ko def looy looy looy màcc. ah. neel ma ndax moom. Mhm. ittee woon naa ko lool waaye ndax mu wax ma. Mhm. nu mu gis résultat yi daal. waaw namp lii ngay def nii nag nga war a bari. waaw loolu xaw ma da ngay namp xaw ma lu muy def nii man damaa amalub tonalité wala. yoo koy composer rek. dama déggu dara. te jël na sa xaalis ba noppi. waaw kay waat. waaw kay waat. ah. wóor roxee mu tere ta mu tere ko tàngal bi. yow ñu toog ci plateau télé di di ma ci tàngal. Oh. roxee de woo na ma bég ah, ah, allo. salaw far ba mën a man a yor waaw farba naa defaay waaw ba man de dama lay laaj di la masawu coono nag te dama déggoon nit nga ni da ngeen a gagné premier tour may laaj ndax ba léegi looloo am de yéen a gagné premier tour am ba léegi wala da ngeen. on a gagné si nous qu'on a gagné. yéen a ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo gagné ñoo ñoo le président a sorti au premier tour ahadi président am na cinquante cinquante cinq pour cent. kooku kooku kooku sénégalais moo lay wan ne la ñoom lay àndal sénégalais moom la ñu àndal sénégalais sénégalais boo leen laajee si boppam wax ni wadd moom la ñu àndal li li li opposants bëgg ñun mun du ñu ko nangu du ñu ko nangu bëgg daaneel du ko daaneel wadd ñun fu ñu jëm fu ñu jëm ah fu ñu jëm ah déet ma ne Farba di gént hmm? ah Farba ah, man de daal je rêve ou bien je pas xaw li ngay wax xaw ma la mais je ou bien je pas. mooy ñun ñoo jël paie. Hmm. waaw bi ñu dem benn deuxième tour bi ñu dem deuxième tour. Ah, di <laughs> dem deuxième tour loolu loolu am pour wax leen te voilà. waaw jërëjëf man de dama bëggoon xam. Sénégalais yëpp waat la ñuy waay. waaw. jërëjëf Farba. Ah, xam rek ndax am dégg nga maam de yow ba léegi yéen ngi jàpp yaa ngi jàpp ndax yow Serigne Mbacke Ndiaye wax na ne gañe ngeen woon deuxième tour allo. ma ne allo. ma ne allo. alo waaw kooku. allo. waaw kooku salaamaaleykum. waaleykum salaam. wala Me <laughs> waaw Farba xanaa day nelaw. Mm, mm. Farba xanaa day nelaw. Mm-hmm. Farba yeewul. Mm-hmm. jant fenk na de. Mm. Farba Farba jant fenk na de. ana say ana nerf yi. <laughs> ana say nerf yi. xanaa wala ah, dama ni. dama ni Ablaye. Hmm. xam nga moom mooy wax ni. Hmm. moom mooy wax ni Me El sama xarit la dama ko dama ko naw. Hmm. parce que eh, Me El Hadji Diouf daf may fàttali état yi ma nekkee avocat. waaw état yi ma nekkee avocat léegi nag. comme c'est mon ami. dama ko wax Ablaye. mon ami. Ablaye mon ami. laisse le pouvoir. sorti dans la grande porte. Ablaye. mon ami. Ablaye. ngir yàlla bàyyi pouvoir bi. Ablaye mon ami. ngir yàlla. Baye Moustapha Niass dem deuxième tour. Mhm. Ablaye. Mhm. mon ami. Mhm. peuple sénégalais ñoo la faloon folli nañ la. Ablaye mon ami. sorti avec la tête haute. moo waa PDS xanaa dañoo jommi. yëf yi dem na fa ñu ba fagewul de. bëgguma taasu nag. bëgguma taasu. loolu laa ciy wax. loolu laa ciy wax. jërëjëf macha allah wax dëgg yàlla de doy na waar. yow xanaa yoro njàpp. ah kay. waaw yoro ñu ah loolu loolu ça n'a rien asalaamaaleykum ça va waaw ça va yitte yi sant yàlla alhamdulilah baarikàlla man man responsable politique laa mm-hmm, waaw maa ngi maa ngi dëkk euh, géejawaay mm-hmm. faatu nag laa tudd damay bañ a wax dàkkantal bi ngay xam kan la faatu laa tudd waaw na nga bëgg defal lu rëy lu àdduna yëpp di coow hmm, waaw waxal lu mu. waaw waaw defal la lu neex lu rëy. ah am nga carte électeur. ah loolu kay nag moom ah. moom eh, eh, yittewoon nañ ko moom. <laughs> anamu. Eh, man yittewoon nañ ko de waaw boo ko defee ñu kii de. voilà xam nga lu ma bëgg. léegi yow bul woote. maa bëgg deuxième tour bi bu jotee. waaw bul woote. Ah. yaa ngi dégg. waaw bu fekkee woote woo. waaw nga indil ma carte bi man ma denc ko ba woote yi paase. ma jox la trente mille. maanaam ma jaay la sa carte daal. mani. Hmm? mani waaw dama ni bul wote. waaw sa carte boobu kat sa carte mën nga garder sa carte d'identité mais sa carte électeur waaw da nga koy jox ma denc ko ba wotee bi passé xam nga xam nga rek pour pour ay affaire la daal ay mbóot waaw ay mbóot yi ñuy jéem a créer la daal waaw waaw waaw su ko defee waaw yow boo boo ba ma ko joxee man naa la jox 30 mille wala 40 000 sax parce que yow comédien nga mën naa la jox ba 50 000 ou bien lu ko ëpp sax ba 500 000 hmm. su ko defee ma jaay sa carte daal man patriote <laughs> waa déglu ma man patriote la man sénégalais laa fukk yóbbuwuma kuf eh, kuf yóbbuwuma cof eh, as gor nag dees koy cof deesu ko ngëp man kenn mënuma cof boo ma cofee ma rot xaalis jënd ma <laughs> sa carte bi laay wote mënula wax nag ba ma jaay la ko te xamee naa la nag boo def ndànk ma waay waa jeex na yaa ngi may yàqal yaa ngi may yàqal man dinaa wax sénégalais yëpp ñu bañ li nga bëgg yow yow lay def nii yow da nga bëgg a yàq da nga bëgg a yee Sénégal yow eh, lu tax ba du ma leen que léegi ku ma wax la waxi carte nga bay. waaye dinaa la xamal ne yow boo sonnee ba nangu loo jël xaalis am na ñoo xam ne fii nii ci Sénégal sonn nañu. te ñu mm. ngeeg seen i carte électeur boo leen tàllalee junni sax ñu jaay seen ngor jox la carte bi. loolu ngeen war a ba ngor ñu jaay seen ngor jox la carte waaw sama carte duma la jaay dara. doo laal tus nga dut laal bu dee man. waaw léegi ma bàyyi ma jox la kii naa la jox naa la jox si cent mille. waaye yow mii dëgëroo bopp yow. dëgëroo bopp yow. waaw bàyyi ma jox la 700000 kon. waaye yow jël ma seen waa kër waaye ñu naan la ay. dégg nga def nañ ko balaa ngay man may sénégalais di patriote dégg nga moom mën na ma dépatriote le mënuma dépatriote hmm. man patriote laa moom mënuma dépatriote le ndax bu ma dee patriote di sénégalais yor sa carte di wote ni ñëpp dégg nga mu taxaw di nit mel ni man ab xaalis day jënd saa ngor man gis naa miliyoote de saa ngor demut hmm. am juróomi dërëm si ànd ak saa ngor moo ma gënal nga jox ma xaalis boo xam ni ëllëg si biir euh, euh, nga nekk fi def lu la neex te duma si mën tus hmm. léegi. waaw tàmbalil continuer ngay mer nii rek. di jox ma ki ci des jël sa téléphone bi sànni ko. jox ma ki ci des Sidibé. nañ continuer hmm? bon le temps ngay wér la rubrique qui revient c'est chante-moi ta chanson avant d'accueillir chacun pour son quiz photo aujourd'hui tey dañoo wàcc ci terrain bi pour def les récupérations de la rubrique mois ta station ak sama lépp sama lépp mooy da ngay seet lépp boo xam ne lépp neex doo offensé kenn nga léebal ñu léegi nag dañuy dog laaj askan wi ban seen moo nekk seen station ñu wayal ñu ko les deuxièmement ñu jox ñu seen lépp daf moom mu xam ñu dem asalaamaaleykum <laughs> ah jaagir jëf suñu gars yi nuyu naa waa gars yi. Eh. daa lom ñu la ko ñeen tal ba dee waajo waaye buur la foo ñuy tase. alors neex doomu aadama liggéey dong moo ko mën joxe mbay te lu mu moo ma gënal li ne lu ma di am bilaay kaa leen liggéey liggéey boole ci jaamu yàlla moo gën kaa leen liggéey liggéey taxu sunu njaboot moo gën jamono liggéey jamono liggéey lañu ñu nekk huit nga xëy neuf nga dem doxi gi bilaay suñ la jiitalee da ngaa war a doon royukaay fexe njëkk a xëy te di jéemay wuti pexe bés bu la xaasa raw mu ne boobu la bés dem na te beneen bi ñëw xamuloo lu mu àndal ma ne taaku liggéey de jëf jëf liggéey leen. bàyyi coow li nañu da bàyyi coow ah. safoor bi bay daawal bul caaxaan bul liggéey soo alay lay la ngay daagu ci tali bi oto fekk la ci nga naan ko boo ma fiire boo ma fiire yaa nga yeewoo hôpital de cuuj fee cuuj fële. waaw <laughs> jigéen ñi bàyyi leen cuuj fee cuuj fële góor ñi bàyyi leen cuuj fii cuuj fële. <laughs> La rubrique euh, Chante-moi ta chanson qu'on va retrouver demain, Inch'Allah. Tout de suite, le quiz photo avant la deuxième partie. Oui, on va voir la photo du jour. Ah Et c'est pas la peine. Ouais. Enfin... <laughs> Qui est Amel